Amadou Gueye ngi lay nuyu. maa ngi nga nekk juriste chercheur et spécialiste législation routière et code de la route fondateur d'auto-école nekk cadre à l'AGETIP également fi ñu toll nii ñu gis ni accident yi bari na euh, pratiquement chaque jour wala deux jours ñu wax ni am na accident am aussi bakken yu bari yu siy rot pour yow ci sa xam-xam lan moo waral accident yu bari yi. waaw Koumba euh, maa ngi lay nuyu ñu nuyu euh, auditeurs u Rewmi donc loolu bu ko bëggee analyser du ñu mooy euh, xibaar yi nga xamante ni ñi moo jógee ci organisation bi ñuy wax OMS OMS yor lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci àdduna bi nga xam ne dañoo jël sécurité routière def ko problème mu santé publique comme ni sida amee wala paludisme bu nekkee un problème au niveau international donc ñoom def nañ ay saytu yu bëree bëri yaakaar naa ne képp kuy wax ci sécurité routière euh, mën nga basé ci chiffres yooyu nga xam ne jox nañ ko au niveau international au niveau Afrique au niveau du Sénégal liñ jàngat ci rapport yi mujj yooyu nga xamante ne nii bi ci mujj deux mille vingt trois la génn mooy accident yi dinañ tax ba au moins lu toll lu ëpp un million de personnes euh, ci àdduna bi dinañ ñàkk seen bakken lu tollook cinquante millions ñu am ay laabo ak ay ay gaañu gaañu grave xam ne ci accident donc lañ ko jëlee donc chiffre yooyu euh, Sénégal génn ci ndaxte boo ñëwee Sénégal nga dem ci organisation bu mel ni ANASER mooy agence nationale de sécurité routière euh, jàpp nañ ni ñoom Sénégal at bu jot lu tolloog sept cent personnes wala lu ko jege dina ñàkk seen bakkan te dara waral lu ko lu dul ay accident sans compter yi nga xamante ne nii euh, dañ ci jëlee ay gaañu gaañu doy waar sans compter impact bu muy def ci PIB wu Sénégal sans compter lourdeur accident yi nu mu amee ci hôpitaux yi ak famille yi nga xamante ne nii ñoom ñooy supporter accidenté yooyu ñu génn àdduna wala ñu am ay laago donc yooyu mooy yi nga xamante ne mooy chiffres yi donc ci chiffres yooyu aussi liñ ci jàngat rek mooy bu ñu defee ay études gis nañ ne ñetti facteurs mooy waral accident yi bi ci njëkk mooy nit ki doomu aadama bi doomu aadama bi di dawal eh, beneen bi mooy woto bi ndax woto xam nga ne day jouer ci sécurité routière waaye tamit infrastructure bi maanaam tali bi ngay dawal signalisation ba ca am wala jaww ji bi ngay dawal nan la dem donc yooyu mooy ñetti facteurs yi nga xamante ne nii en tout cas eh, moom lañu gën a joxañ baaraam Sénégal nag eh, man gisaguma fii xëy na étude bu scientifique bu poussé bu mën a boo mën a tëkkale ak yi am au niveau international nga xam ne état yëpp ñoo ci contribuer y contribuer y compris Sénégal buy wanee ne facteur bii exactement moo gën a fës ci Sénégal mais d'une manière global daal ñëpp jàpp nañ ne facteur humain boobu ñuy wax maanaam doomu aadama bi comportement am xam-xamam doxalinam ak euh, façon bi muy dawalee donc tax na ba accident yooyu euh, di jur yooyu jëyee ci Sénégal Euh, parfois sax ñu daal di wax ni euh, tali yi baaxul wala sax visit technique bi aussi est-ce que posé wul problème parce que Amadou parfois da ngay gis euh, yenn oto yi di daw si kaw tali bi question bi ngay posé wu mooy est-ce que kii am na visite technique. lu ko xalaat ci visite technique bi surtout. Hmm. dëgg la ndaxte matagul une semaine. kii di premier ministre Ousmane Sonko ci conseil interministériel bu mu doon def di ci waxtaan ak jëwriñ yi nga xamante ne nii en tout cas sécurité routière soxal na leen euh, joxoñ na baaraam visite technique yooyu donc mu nekk loo xam ne nii du du ñu mën a wet ci Sénégal ci soto bi daw nga ne kii nan la def ba am visite technique donc loolu nag euh, li ko gën a waral mooy man ci li ma jàpp dañu war a fexe ba contrôle technique yi ni mu amee Dakar contrôle yoo xamante ne nii ay machines yu xarañ na koy def ñu fexe ba loolu am ci région yi te yaakaar naa ne loolu jafewul su fekkee dafa am monopole bu ci am ñu jéem a xool en tout cas lu ko waral duñ ko mënee déli libéraliser ñu libéraliser ko ndaxte boo demee dëkk yi dëkk tugal di tey euh, centre de visite publique euh, mécanicien bu xarañ sax am atelier bu normal nekk en règle dañ koy may mu koy def ci ay charte ak ay procédures yoo xamante ni état ci boppam moom moo koy teg yaakaar naa Sénégal ci am nañ mécaniciens yu xarañ yoo xamante ne nii euh, ci école yu Sénégal yi lañ génnee donc ñooñu war nañu mën a ànd ak accompagnement de l'État fexe ba euh, visite technique am ci région yi ñu bàyyi xoole koy ay bët saytu tamit wàllu yi nga xamante ne nii euh, premier ministre bi teg loxoom bu baax mooy wàll corruption bi mm-hmm. ñu ñu saytu ko yaakaar naa bu ñu defee noonu néew ma lépp dina yemb waaye lu ci bëri dina dina dina réglé wu ba ci technique yi en tout cas jaar yoon au moins à quatre vingt dix pour cent. Hmm. Euh, léegi euh, bu fekkente ni accident am na Amadou euh, naka la autorité yi di def pour mën a situer les responsabilités. waaw autorité yi bu accident amee li ñu def mooy dañuy tënku ci ci loi waaw ndaxte loi mu tënk citoyen bi maanaam l'administré tënk tamit. autorité bi mooy administration bi donc bu amee benn fait bu mel ni accident dañuy xool yan loi moo ko régir maintenant euh, loi yi ko régir bëri nañ damay faral di wax ne euh, code de du rek ay panneau ndaxte boo defee accident tey nekkul panneau bi mooy régler problème mu accident bi nekkul panneau bi mooy wax kan moo tooñ nekkul panneau bi mooy wax kan mooy fay wala kan moo dul fay wala kan la ñuy tëj donc dañuy jëli yeneen loi loi yooyu am na Sénégal déjà bu weesoo code de la route bi nga xamante ne nii fi ngay am le règles de circulation et de ak yooyu ñuy jël li ñuy wax la responsabilité pénale tey gendarmerie ak police fépp am accident boo xamante ne nii euh, nit gaañu na ci wala mu génn ci àdduna rek da nga war a woo gendarmerie wala nga woo police loolu c'est obligatoire loolu moo tax sax ñu bañ nit ku fekkee accident nga jiitu fa ba pare wallu woo woote woo loolu la ñuy wax non assistance à personne en danger ay la ci sec donc première étape bi mooy euh, état day dugal loxoom à travers la gendarmerie et la police ñu ñëwee ñoom li leen gën a soxal mooy situer la responsabilité responsabilité boobu nag i euh, ci njëkk mooy la responsabilité pénale donc wax nañu ne ah li nga def ni de infraction la dañ la tere lii yemal vingt nga daw cent donc def nga infraction ñu mën la ci teg ay daan daan yooyu mën na nekk une condamnation maanaam ñu tëj la ci kaso mën yi nekk yi tamit amende amende bu ñu ko waxee mooy xaalis boo xam ne da koy fay waaye ci keesu état la jëm trésor public dañ koy versé hmm. bokkul ak li nga xamante ne nii mooy dommage intérêt dommage intérêt bu ñu koy wax mooy beneen responsabilité bu ñu woowee la responsabilité civile responsabilité civile boobu yeneen loi wu Sénégal tamit ñoo koy organiser par exemple mën nga joxe exemple code des obligations civiles et commerciales moom mooy wax bu nit lii nii lay demee da koy fay di et cetera donc wala ñu wax réparation donc yooyu yëpp état da koy da koy da koy daal di dérouler pour que ñu mën a régler problème bi su fekkente ne euh, nit ki di ci gaañu aussi il faut que ñu xool fekkee oto dañu am assurance tay boobaa day am situation de responsabilité donc assureur bi de daal di dugg assureur bi li koy dugal bokk na ci code bi ñuy wax code ciment hmm. nga xam ne c'est une convention internationale boo xam ne Sénégal daf ko ratifié bokk ko ak yeneen i état Mm. loolu mooy waral tey policier bu la jàppee ne la am assurance boo ko joxul ñu daan la ndaxte article deux cent bu code ciment boobu daf ne bépp oto bu am moteur bi daw ci kaw tali bi dafa war a am assurance donc mm. assureur boobu tamit bu accident amee moom day ñëw daal di jël en charge euh, euh, victime bi mm. daal di réparer oto bi yàqu daal di indemniser bu fekkee indemnisation daf ci war a am léeg-léeg itamit nday nga gis accident boo xamante ne nii euh, ki ko def dafa daw maanaam mbëkk nit ba pare daw xam nga kooku mënoo ko mënoo ko identifier. waaw même bu amoon assurance. Mm-hmm. mënoo xam ban assurance la am. Mm-hmm. wala nit ki mbëkk nit ba pare fekk amul assurance tax dawul waaye amul assurance. Mm-hmm. mooy li nga doon wax sànq rek. xëy na amoo visite technique amoo assurance. cas yooyu aussi bu amee eh, jarul ñu fay nekk naan baal ko te yàlla tax déedéet soo ko baalee man dama dama di que yooyu soo baalee nit ki du nit ki nga baal mais mais keneen nga baal. keneen ki nga baal mooy kan soit assureur bi la soit li ñuy wax. Euh, euh, fonds de garanti automobile mhm. fonds de garantie automobile état du Sénégal moo ko fi teg mhm. mu nekk un organe de l'état képp ku def accident euh, ki def accident bi ki la mbëkk daw wala ki la mbëkk amul assurance fonds de garantie automobile ngay dem ñoom ñoo lay jël en charge bu dee da nga war a faju ñu faj la ba nga wér péng mhm. bu dee dafa am yeneen dommage ci am ñoom ñu jël ko en charge réparé ko Mm. donc en général daal ci tënk loolu mooy régime bi nga xamante ni accident bu amoon tey état du Sénégal taxawaay boobu la ci am. bu mm. weesoo peut-être euh, politique bi nga xamante ni ministère des transports. Mm. da koy da koy da en place. Euh, mu aju ci vision bi chef de l'État am ñu man transport Sénégal nii laa ko bëggee. voilà ñu ñëw ci solution yi euh, Amadou Gueye pour yow lan mooy solution exactement am na ñoo yoo xam ne régime bi fi jógee jëloon na ko gis nañ ni amul benn effet régime bi fi nekk aussi mi ngi xool euh, lan la mën a teg pour accident yi wàññeeku bu baax a baax gis nga ni actuellement ñi ngi préparer ay états généraux jëm ci wàllum transport public lan mooy si sa xalaat wala sax lan ngay suggérer autorité yu bees yi ngir accident yi wàññeeku bu baax a baax waaw euh, mesures yi ñu mës a jël depuis Sénégal am indépendance ba léegi man jàpp naa ne am na lu ci baax euh, gàllankoor bi fi muy nekk mooy suivi bi donc Sénégal mën nañ jël ay décision yu xarañ parce que fii am na ñu xarañ ñu fi nekk mais problème fondamental bi ñu am mooy mhm. donc bu ñu jëlee ay ñaari fan ñett lay doon li ci ëpp euh, ko topp loolu un vrai vrai vrai vrai mhm. euh, bi mooy yi man pour man en tant que juriste euh, dama jàpp ne droit euh, euh, mooy la loi mooy organiser lépp ci ci ci ci ci réew donc gisuma ci réew lenn luy dox ci réew te loo xamante ne nii droit organisé wu donc problème bu amee ba toll fii man pour man li ñu war a def li ci njëkk mooy xoolaat loi yi xoolaat loi yi gën a valoriser waat li ñuy wax code de la route code de la route boo koy valoriser dafa laaj ñu euh, ñuy woowee les chercheurs donc euh, tey ñun chercheurs yi yaakaar naa ne ñu tumuranke lañ ci Sénégal euh, yàlla xam na ne am nañ ay xalaat yu bari yoo xam ne xëy na bu ñu ko doxaloon dina tax réew mi gën a avancé dama lay jox benn exemple daaw wala daaw géej ci mesures yooyu ngay wax mos nañ fi jël ay mesures yoo xamante ne nii ci vingt de mesures yi par exemple tey état bi des fois day jël ba jël mesure boo xam ne existé na déjà considéré ko comme lu bees donc loolu day wane degré des fois ñenn ñi ñu nekk ci instance yenn yi sax des fois yenn loi yi duñ ko xam. Mm-hmm. yaa ngi ne damay jël créer lu bees te fekk loolu am na ba pare. Mm-hmm. beneen bi mooy des fois da ngay gis euh, ci mesure yooyu mesure boo xam ne day modifier loo xamante ne nii instance bi ko jël mooy instance supérieure par exemple euh, code de la route dafa am partie législative am partie réglementaire partie législative bi assemblée moo koy voté partie réglementaire bi décret président moo koy jël. ministre mënul changer ak arrêté loo xamante ne ni décret moo ko jël donc yooyu mooy manquement yi nga xam ne dañ ko surnoté nga xam ne dafay violer les principes de la hiérarchie des normes donc li ma bëgg wax foofu mooy euh, bu ñu bëggee mesures yi ñuy jël gën di baax ni ñuy gën a gëstu ñi nga xamante ne nii parce que code de la loi la d'abord donc dañ ciy impliquer davantage les chercheurs et les juristes su ko defee mesures yi ñuy jël dina gën a baax euh, beneen bi mooy mesures yi ñuy jël. parce que des fois da gis Sénégal accident am fenn kenn taxaw wat ci benn rajo ne non pneu bi toj wala chauffeur bi doon nelaw wala lii accident musul nekk benn facteur. Hmm. accident c'est toujours plusieurs facteurs ñooy waral accident am. boo nee tali bi kooku tali boobu dafa am pax moo tax accident am ñaata oto ñoo fay jaar te defuñu accident. Hmm. bien vrai que pax boobu warul am ci tali bi. c'est pour te dire que ce n'est jamais un seul facteur. Hmm. donc tey bu ñu bëggee euh, décision yi di baax ministre bi volonté bu mu am mu mun a traduire ci décision yi mu jël pour mu mun a changer li mu bëgg a changer li ñu def tey woo acteurs yi. Mhm. dajaloo toog pour jéem a waxtaan pour seet lan mooy problème mu transport. moi je pense que benn solution gënu ko noble. Mhm. ndaxte solution boobu li tax mu noble mooy dafay permettre administration cadre yi fa nekk ingénieur yi fa nekk borom xam-xam yi fa nekk. daje ak ñi nga xamante ne nii ñooy les acteurs sur le terrain nga xam ne ñoom expérience bu bëri lañ am ci pali bi ñu dajaloo waxtaan génne fa problème réel yi nga xamante ne nii moom moo am ci tali bi mm-hmm. donc loolu la ñuy wax les réalité factuelles et empiriques donc loolu day permettre tey euh, autorité bi tey bu jël décision décision bu mu jël day partir sur des réalités scientifiques factuelles réelles su boobaa lépp lu ñu fa jël du dootul dootul naax saay mais day nekk loo xamante ne nii njëriñ la boo xam ne mën régler réellement problème transport Sénégal. voilà Amadou ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci leeral yi. maa ngi lay remercier aussi. voilà ñuy fàttali ni Amadou Gueye juriste nga chercheur et spécialiste législation euh, routière euh, code de la route également fondateur d'auto-école cadre à l'AGITEM ñu lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi merci.